bu Nations Unies bi ñuy amal ca New York ca réew Amérique moom nag euh, mu wax euh, ci turu Afrique en tant que président Union africaine wante day euh, li wetu woon moo di ne bu ñu ko fayoon borom moom Macky Sall kon benn yéen kaay di wax ci mbiram ndaxte moom kippewul tasul taskatu xibaar yi ci réew mi rawatina ak média privé yi du entretien di interview du tax tukki ba boole leen ci njàngatu Babacar Fall Macky Sall ku bëgg yomb la te ñu nit journaliste yi kenn du ñun boo xoolee tey yéenekaay yëpp ak rajo yeeg télé yi nekk di ngaw ngawti ngawtee kaddu gi Macky Sall yëkkati démb ca ndajem ONU bi ñuy wax assemblée générale de l'ONU fële ca New York ca États-Unis nii ñu doxalee ci mbir mi salfaañe na sunu dignité te boo xoolee tey ni xibaar yi jibee nga xam ni lu bees am na ca pale ak ku bees ku ñu tabb foofu mu war a yittewoo xabaar ak jokkoo ca palais présidentiel xabaar yi demee tey nii Macky Sall fii ak faa fu nekk nga seen ko fa loxo waaju bees jooju génnu ci. Macky Sall président boo xam ne la du wax ak ñun lu tax nag ñun ñu war koo waxal wax ci palaasam président Macky Sall li mu mérité mooy journaliste yi boycotté ko. waaw boycotté Macky Sall loolu la journaliste yi liggéey ci privé bi def. ndax du tàyyi moom président de la république di ñu wan ñàkk fay daal gim ñu ñàkk fay daal. waa présidence de la république boolewuñ ci presse privée bi boolewuñ ko ci dara même réunion yi nga xam ne ubbil nañ ko ñëpp presse privée ba pour mu dem fa lu jafe la waxuma la nag tukki yi président di tukki dangay gis ay président ci àddina bi yu fonk seeni journaliste fu ñuy dem am ñu ci jël ànd ak ñoom ñun nag loolu yëpp waa jii di Macky Sall def kook ñun ñu wëlbatiku bëgg nekk haut-parleur am bu sëqatee sax ñu wax ko palais présidentiel gii amul xeetu toroxal bu fa journaliste yi dul jëlee saa yu ñu leen fa woowee lañ leen fay wookat bëriwul waaye bu ñu leen woowee ñu ñëw amul xeetu toroxal buñ fa dul jëlee di leen weer ci naaj bet ci ngelaw li di nangu seen i téléphone ak leen jaarloo foo xam ni liggéey ba day jafe loolu yépp boo laajee journaliste bu mu sa dem pale daj na ko waaye nag lu normal la ndax fukki at yi fi Macky Sall toog nekk président de la république amul dara lu mu defal journaliste yi bërëbu tasum xabaar yaa ngi nii jafe koom-koom tënk leen jatang leen jafe yi tar na lool ñun bokk nañ ñun journalistes yi ci secteur bi nga xam ni bi Macky Sall faloog léegi amul benn plan bu mu tëral ngir dimbali ñu. li ñu gis kay mooy média yi ñuy wax public ñoom RTS ak ñoom seen ñooñu la ñuy yokk doole. boole kook di leen bàyyi ñuy jël ci publicité gi publicité gi nga xam ne lu néew la ñu se jël lu bari di def ci seen kees. ñeneen ñi sëngéem état bi di leen jox ay subvention maanaam di leen dolli xaalis itam. loole yëpp nag ñu gis ko ba noppi bëgg doon ñun au parleuru Macky Sall lu mu bëgg a wax rek ñun ñu jël wax ca di ko taawee ko ñoom seen ndax kàddu gi New York ca Amérique du kàddu yoo xam ne jar na tey li ñu gis ci presse bi am na yu gën a am solo yu xew ci réew mi looloo mérité nekk à la une te du Macky Sall rek nag premier ministre bu bees bii ñu fal mu ñu naan ko Amadou Ba moom it xaw ma man pexe lay jëfandikoo ba yéenekaay yu bëri di xëy di wax ci moom xam naa moom itam day bëri nay pexe lool moo tax ñu war a xoolaat sunu bopp ñun journaliste yi cër bi ñu askan wi war a jox cër boobu ñoo sàgganee ba mu rëccuñu bu loolu amee rek mooy ñun yàqu nañ ñun ñëpp